tey dañu daje fii ci stade municipalu Dieuppeul Derklé ñu koy wax terrain Castor pour sargal waaye màggal ak xaatim benn convention boo xam ni moo ñu lëkkale ak fri convention bi nag li ko sabab lu yaatu la lu yàgg la ndax daaw lañu taje woon ak Free waxoon leen ni comme que yéen opérateur téléphonique te da ngeen di yëngatu te yéen seen liggéey day itteewoo ñu di leen gis di leen xam di leen nemmeeku donc dana jaadu ci gox-goxaat yi ñu xam leen ràññee leen xàmmee leen ñu ne leen ci kaw loolu dañu am benn terrain basket bu nekk fii bu ñu sañoon ngeen jàppale ñu ko defaral ñu ko defar bi ñu koy defar nag ñun duñu am taxawaayu baadoo la maanaam ku ñu defal teraanga ñu fay la teraanga ñu ne leen bu ngeen defaree terrain ba noppi mën nañ ko def couleur Free bind ci sax frie pour wane ni yéen yéen def jëf ju mag ji ndax xam ngeen ni am na lu ñuy wax RSE di responsabilité sociétale pour l'entreprise ba entreprise yi war nañuy jàppale gox-goxaan yi ndax entreprise yi ak gox-goxaan yi ñoo bokk yéene ñoo bokk mbébét seen mbébét mooy fexe ba jàmm am ci gox yi fexe ba koom am ci gox yi fexe ba sam salaam am ci gox yi fexe ba ndaw yi mën di tàggat seen yaram ci fànn bu nekk loolu directeur général bi taxaw rafetlu yéene bi ni daañ leen ci jàppale daañ leen ci gunge bi ñu demee ba mu yàgg mbas mi ndegi daaw commencé am ñu dégmal fin d'année moo xamal ma ni ma mbas mi ni mu ñëwee ak at mu jeex mi nga xam ne budget yi dañu wàññeeku mbébét bi ñu amoon bàyyi wuñ ko mais nañu ko denc ba déwén muy ren ñu defu ko bi ren jotee ñoom ci seen bopp ñoo ma ni may lañu façon daaw fas yéene nañ ko jëfee ren bu ñu koy jëfee nag dañuy daje ñu signé benn convention de partenariat convention partenariat bi ñuy signé boo xoolee poñ ci nekk yëpp dafa dëppoo méngoog taxawaay ak sañ-sañu gox-goxaan éducation formation professionnel jeunesse solidarité développement durable loolu yëpp yëfu gox goxaan la donc convention boobu bu ñu koy signé signé ko pour président directeur bi signé wuñ ko pour directeur exécutif bi signé wuñu ko pour maire bi mais dañ ko signé pour askan wi gis ngeen léegi suñu jataay bi léegi ci mbirum basket commune Dieuppeul Derklé am na équipe bu mag bu joué première division ñu di ko wax dévelop mu joué le grand rôle commune nu Dieuppeul Derklé am na Dieuppeul basket club commune jëppal Dieuppeul am na Castor basketball académie maanaam ñiy def basket ci commune bi dafa bari te collectivité teritorial lañ ko sa sas moo di dafa war fexe ba yaatal wala jëmmal ay béréb yoo xam ne mën nañ fa tàggat yaram moo xam football la moo xam basket la moo xam pétanque la moo xam arts martiaux la moo xam bépp tàggat yaram bu mu doon donc loolu bu ñu ko defee ànd si ak firi defaluñ ko suñu jëmm yi waaye ñu ko defal ñiy tàggat seen yaram ci basket di ko defal suñu doom yi di ko defal aussi ñi ñëw démb ak bërki démb ndax tey jii xam ngeen ni fii ñu nekk stade municipal la jamono bi ñuy wax ak yéen bu ngeen sànnee seen bët fii rek gis ni liggéey bu ci ayib ñu ngi ko fi amal lii bu fi amee yàlla ak jàppale maire dakaar la mais yàlla ak jàppale ak dégg galañ dégg daaj. entente deqalee walidaat ndax bu la lekkee alom na ko gërëme cooy entente deqalee walidaat sant ak ngërëm ñeel ne leen ñu ngi ñuy jàppale ci liggéey bi ñu ngi ñuy xelal ci liggéey bi ñu ngi ñuy taxawu ci liggéey bi xam nañu lii bu ñu koy def ñoom ñoo tax ak mbooloo meeg famille bi nga xam ne moom la ñu ndax commune Dieuppeul Derklé lu nit gàtt gàtt dégg-dégg xam nga ni commune la boo xam ni li fi meññee ci ay sportif ci fànn bu mu nekk de haut niveau seen lim kenn mu koo jeexal tey am na ay internationaux yu bari ci football boo leen waxee terrain Castor ñun la football naaf am na ay mbër sax yu fi ne tey jii boo leen waxee jëppal der derkale ñu ne la daw naa fa tàggat naa fa yaram am na ay basketteurs yu mag ci Afrique ak ci àdduna bi boo leen laajee daañu la jaar naa commune boobu basket fa donc bu fekkee ni commune bi dañu bëgg tàgg euh, sport sport nekk seen itte ñun la ñu war mooy taxawu leen. ci ñu mën a def sport boobu seet ay bakkan ci anam yu sell looloo tax lii doon mbébétu askan wi démb ak bërki démb ndax terrain bi ba mu juddoo léegi ëpp na juróom benn fukki at du ñu yem rek ci defar terrain football bi bëgg ñu defar terrain basket bi bëgg na nañu defar bloc administratif bëgg nañ fa def salle de musculation bëgg nañu def ay vestiaire bëgg nañu def ay toilettes nga xam ni képp kuy ñëw ci terrain bi bépp mbébét boo am boo ñëwee mën na saafara ci terrain bi te du la tee tàggat yaram bari na ci yéen sportif yi bari na ci yéen journalistes yi même bu ngeen dul grand footballeur même bu ngeen dul grand basketteur mais boo amee piste boo xam mën ngeen ciy daw di randonnée wala salle de musculation ngeen defar seen yaram mais day nekkul dara te nee nañu wérgu yaram mi ngi ci pratique gu sport la sport le sport dafay dimbali nit mu ànd ak wérgu yaram mais ñun yemuñu ci wérgu yaram rek dañu bëgg def sport éducation. sport santé fii école bu mag moo fi nekk ñu koy wax xaadimu rasool ñoom bu ñuy def seen EP éducation physique fii lañ koy defee bëgg nañu xale yu ndaw yi ni ko Castor basket académie di defee commencé bu ñu gindee gindee ci basket wala ñu gindee ci football loolu tax ci projet boobu sax prévoir nañ fi benn mini terrain de football boo nga xam ne xale yu ndaw yi école de football bi daañu fi mën football ñi war a football sax ci terrain bu mag bi mën fi def mise en train maanaam lépp loo xam ne ab terrain daal yeeyoon na ko bëgg nañu mu am ci terrain bi léegi rek maa ngi waxtaan ak directeur bi ni ko gis nga liggéey bi tàmbali na yéen kañ ngeen di commencé mu ni yéene mooy au plus tard au mois d' avril bëgg nañu commencé liggéeyu terrain kas euh, terrain basket bi mais bu ñu ci paree ñu jàll ci leneen bu ñu paree ci loolu ñu jàll ci leen régler problème environnement bi mais def naa loolu yokku yokkute la ci gox mi te ku yokkul ku yokkul da ngay wàññi te ñun bëgguñoo wàññi dañu mën a bëgg yokk rek engagement la bu ñu jëloon ak askan wi tey yàlla ñëw na ak ay opérateur pour jàppale ci dañu mën lu dul sant leen gërëm leen donc ci sama tur ci turu askanu jëppal Derklé ak conseil municipal bi yëpp ñu ngi sant ak di gërëm gërëm lu amul ab le directeur général Mamadou Mbengue moom doomu HLM la doomu gox bi la terrain bi xam na ko fubal na fi ba tey donc tey jii bu yàlla defee mu nekk directeur général du Free ñëw ci terrain bi nga xam daan na fi ñëw démb ak bërki démb du football defaraat terrain basket mais loolu delloo njukkal la kon loo mën ren yàlla na nga mën lu ko ëpp yàlla na la yàlla jàppale